li ma bëggoon wax ci wolof mooy di leen jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñu fi teew euh, ñu ngi ci benn kuréel bu tudd euh, ñun ay kuréel yu dajaloo lañu kuréelu vision citoyenne kuréelu frappe France dégage kuréelu euh, doy na Casamance ak kuréelu yoonu askan bi ñun ñoo ñëw tey ci kanam préfecture bi ci préfecture bi même pour gis préfet bi pour jox suñu bataaxal bi nga xamante ne li ñuy waaj la yan kenn réeréeru mbir ni dëkk bi fi mu nee nii dafa tàng jër ku ko waxul rek waxoo dëgg ñun nag du ñu toog ba suñu dëkk bi takk ñu doog a jóg pour fay xal moo tax ji tey jii en tant que ay ndaw ñu ne dinañ jóg dem ci préfet dem déposer fa li ñuy tuddee note information pour yëglu ni dañoo bëgg marche mardi bii di ñëw marche bi nga xamante ne marche su jàmm la marche pacifique marche pacifique boobu nag lu tax mu jóg moy dañoo bëgg ni démocratie bi nga xamante ne dañ koo xeex xeex ko xeex ko ba mu toll fi tey démocratie boobu bëgguñu kenn ku ko salfaañe donc moo tax ñu ñëwaat encore pour dox ci biir marche boobu pour le respect des droits de lom mooy men mooy maanaam akulaay taalaaw nit ñi ñu bàyyil leen ko lépp luy seen cër ñu jox leen ko ci marche boobu tamit dañoo bëgg a wax ni ñi nga xamante ne dañ leen jàpp ci yëf yi ñun dañ leen considérer comme ay otage politique ñu bëgg gouvernement di Sénégal mu bàyyi leen parce que encore une fois de plus lu ñuy wax mooy gouvernement boo gis mu toog luy cëram du jàpp ay doomu aadama du jàpp ay ndawam di leen tëj ndaw yi fereen moo nekk seen place mooy jox leen liggéey koo mun ta jox liggéey nag sa warugar waruta nekk di ko tëj donc ñuy ñaan état du Sénégal lépp li nga xamante ne dayoo te ñu amoon ko ci démocratie mu respecté ko ñuy ñaan état Sénégal lépp li nga xamante ne wareef la ak cëru doomu aadama ñu bàyyil ko ko ñiy ñaan état du Sénégal lépp li nga xamante ne détention arbitraire la ñu bàyyi ko parce que Sénégal c'est un pays de droit Sénégal dëkku yoon la donc du ñu bàyyi kenn muy salfaañe yoon boobu du ñu bàyyi kenn muy entaché wala muy takkal lu ñuul suñu démocratie bi nga xamante ne 2011 gis nañ lu mu ñu jaral kon 2021 jaral nañu lu ëpp lu mu ñu jaraloon 2011.